assalaamu aleykum wa rahmatullahi yi jullit yi yéen maa ngi jottali ak nuyoo di jottali ak cant di jottali ngërëm di ndokkeele di bal wax waxtaan bi nu war a waxtaan nag bala nu ko tàmbali nanu fàttaliku dénkaane boo xam ne Sëriñ Tuubaa daana ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax buy juwét moom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melaw àddina bëgg leen a génn ci yàlla ak yonent bi bu boobaa dal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa te bu ko wàcc loolu moo ko daa wax moo daa wax it ne nit ñi day laa yoon ñoom ba noppi ci fii ne dëkkas fa nu ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng kon nag ma fàttali ci dénkaane yooyu mu daa dénkaane door a jëm nag ci lu war a waxtaane sunu waxtaanu kay nag noonu ko war a jëme ci àddina ak ko meloom ak li tax andi lu fi ak ni mu demee ci bu loolu jàllee nu teg ci Sëriñ Tuubaa nga xam ne yaakaaru ñu dul moom ni nu war a àndee moom ak ànd gi ci boppam it li mu ci nekkal loolu war nañu ko wax daanaka ak itam liggéey bi nga xam ne ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakk rakk ci gàmmoo laa leen ko waxoon fi mu ci toll ak ni demee lépp ma leeral leen ko. adduna moom bëgg naa nu yëg ne andi wuñu ñu ngir noppal ma andi wuñu ñu ngir nu sax fi andi andi wuñu ngir bégal ma. dara indiwulu ci ludul suñu yaari waajur yi nga xam ne ñoo na meñ te nekkoon ci àjjana jëf ji di jëf loo xam ne terewan nañ leen ko te seytaane fexe leen ba ñu jëf ko ba ñu sunu borom ba leen sunu borom ne al anhakuma alam anhakuma an tasuma sa jërëji wa qul lakuma inna seytaane lakuma addu mubinum ñu ne xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min al xaasirina loolu doo nga ñu tëppal ci fii yàlla suñ ko leeral mu taqar moom ataa mu ñu leeral kon nañ jëm yëngu adduna lu yàlla woyofal la lu yàlla tasal la ndax bi mun fi sëppeelee ndox ak suuf rek la fi def lépp lu ci lu fi def ci jariñoo ci ndox nag suuf rek lay génne te ngar ngar rek a génne akub coono loolu kon won wone na ne eh, noppal bi rek taxul mu indi nit ñàkk a sax lu leer nga kenn koo xam ne jur sa bàyyi ka jur bàyyi mu tënk ci sa bët am loolu kon wan na li ne taxuñu fi naka noppalu gi itam war na lii ne wan ne gannaaw kenn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe bi defu ci dara taaba gi rek la fi defal te taaba gi ba ko fi defee malayka yi liggéey ko ci wuru si yaaxoot bi nga xamante ne tuufaanu noxi bi ñëw na la ko jël la ko yëpp yóbbu fa ko fekk musib na Ibrahima ñëwee ak Ismaayila ci bu dëkkuloo Ismaayila foofu ca yebale sidina Ibrahima mu dem mu yebale ma nga xam ne su ñu fa doon samp Kaaba ga la bokk mu rëddal ko fa mu jaaraat mu tabax ko kon tabax googu sidina Ibrahima ñoo ma ko def ngeen gis nañu bu dee jaar day door a am fu mu dugg bu dee am picc day sàgg door a am fu mu dugg bu dee nit ay bant door a am fu mu ab tabax aw ñaxam la jaay door a am la lu ma ko tabax ba noppi nag yàlla fab yëpp fafal na ko ci biir àddina àddina yoo xam ne bu mu tàggu moom mukk lenn li mooy rees lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loolu lekk ci bëggee bu subaa nga nga soxla at ko mu dem ci ñun lépp loo xam ne sol nga ko ñun ñii ci rajo bi ci suñu mbubb ñii nga sol boo ko suñu ba suba si doo ko mën a ñëwee ci dénk bi kon war na leen ne dara gannaaw gu loolu yooyu itam képp koo xam ne fa nga dëkk loo fonk fonk dëkk ay ba bis bu ne dañu koy xëy fopp ak a defar wa ila moo daal di mel ni lu dul dara te boo amee gis bu ba mel ni amatul njëriñ kon nag a xam ne la njëf lu daal fi barab yom fi barab lu mu doon gàtt waaye lu aju xew gàtt gàtt ñu bëgg ko gën a gàtt ngir doomu aadama boo gis lu gudd gudd aw fan fee fekk aju na fi la ko bàyyi doomu aadama ci boppam itam li muy gàtt gàtt ñu ak mën ko gën a gàtt ngir ku am nga ab diir war a mën dara te boo fi yàggee ci nga doo sëgg te man foofu it li gàtt gàtt moo yor àllaaxira te àllaaxira yëmul fenn kon nag lu des ci fooy xëju ci lu des ci caaxaan xëju ci lu des ci maa yamam taxu muy wax kon adduna ngoog aw melo ba ngoog li nu subaa ngoog li nu melo ngoog ñu jëm nag ci wàllu sëñ Tuubaa nga xam ne yaakaaru ku joo xam ne ku yàlla defal tawfeex nga nekk war sant yàlla nga naa dal te moom bi képp ku ànd ak moom te nga dëgg ci yow su mu mën a doon li weesu daw raw nga ko li nga ci yóotu lu ne def nga ko yees moo wax ne ay yeesa ay yeesa rabbi abadan wax wal muslim iblisu min nii wax sàkkul alamin parce que seytaane la weesu daw di raw seytaane la koy daw ma naa ko mu doon wax ne elay xaara maa illihi farra tusbul ileeli man adaamoo jiraar li nga xam ne ña gën a baax tey ñun daw jom di ko wuti moom xëcc nañ ko ëjjil ko ko kon nag ku nekk ci wetam la ngay daw raw nga ko la ngay yóotu jox te itam ñu xam nañ ne ñun liggéey sëñ Tuubaa rek moo nu war leneen waruñu ngir ni mu def yonent bi ba yonent bi def ko ni mu ko def noonu rek lañ ko war a jéem a def te mu suñu kàttan te moom nee na man fànnani xayra xadimi Mustafa fa innani axdimuhu bi Mustafa أخدمه إلى دخول الجامعة دار القرار والمنى والمنى يا من وقت بقم بيض أجمع منكم أمر الوقت ñu ñëw na ci tey la géej liggéey bi moom maa leen ko waxoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar feete bi gàmmoo waxoon yi yéen ngeen dana liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaan bi loo xam ak barabam ku ci ñëw dana xam mooy Xaadimu Rasuul loola ba ma koy wax ma yow ak mi sax ump ma ngay man ñii di wax am naa xam-xam te ak mi du ak ma du melul ndax ak war a mel million la ak ñett ma def ko la jiw te million ak ñaar waaye nag su dee wutal nag ma xam ne mbay mu nangu xor yu nangoo ko gën wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ Tuubaa te duñu ko bànqee. kon nag boo ma leen koy boo ma leen koy wax waxoon naa leen ñu leen milliard bu banque fii ci waaye li ci laajee ci ñu ci sama waxo juróom-benn téeméeri million mat na juróom-benn téeméeri million yooyu yii dama yëgal yéen ñu leen am na ci maa ngi gis nekk bu ma leen bëgg a leeral am na yoo xam يوم غطفها أي فصغتها مجففة بمثل ديون في ديون في كبار جرم خلاجها فكل شيء تحفظ غير يخيي sama doom laa ko joxe lii sama maam laa ko joxe lii sama bàyyi laa ko joxe defal ma ko soo jëlee sëñ Tuubaa kon nag loolu wan na leen ne ñu yëpp joxe ñu sëñ Tuubaa seen xol joxe ñu sëñ Tuubaa seen bopp kon nag sunu ma dumay jox li leen moom gërëm jox li leen moom kenn xamal leen ni leen liggéey bi ñu dem ginnaaw xaalis boobu daje na loolu si daal di moo daal di ñaan na war a ne waaye nag waxtu yooyu ñu wóor waxtu wu ñu dematee ba nu war a def rek dana leen ko wax. maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant sëriñ si di sant taalibe yi di sant góor gi di sant jigéen ñi di sant gone yi di sant màggat ñi ak ñi nga xam ne mënuñu dara di seen i waajur di leen defal ak ñi dem àllaaxira ba noppi si seen i seen i seen i defal jërëjëf jëf yal na nu sëriñ Tuubaa nangu yàlla sëñ Tuubaa nangu yàlla sëñ Tuubaa téyel boppam téyel boppam loolu mooy loo xam ne ñu mu ko woon a ñàkk a wax ngeen leeral ko leeral leen ko gannaaw gu loolu wéyoo nag bu nu waree bu nu waree nañ jéem a jëm nag ci tool ci yu bàyyi ak ak rafet ndox ak fasoo liggéey bi nga xam ne suñu benn liggéey wala suñu benn ñax war a jëm fenn lu muy liggéey sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom yor moo defar suñu ëpp defar suñu àllaaxira jërëjëf